Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah wa alfurxaan maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di nuyu euh, Cheikh Atoumane mi fi dugal texte bi xawma texte bi nag man nan laa koy tuddee ndax règlement intérieur la wala code de conduite la wala lan la d'abord li may laajte mooy texte bi moom ban valeur juridique la am daal ban valeur juridique la am ndax Euh, maanaam euh, Sénégal euh, dafa am lu ñu naan la hiérarchie de norme lu ñu naan hiérarchie des normes mooy lan mooy luwaay yi loi yeeg normes yi yi fi ne dafa am bi nga xamante ni moo fi jiitu am bu ca topp am bu ca toppaat loolu dañ naan ko genre pyramide la nga xam ne bii moo gën a mag am ba ca topp gën ndaw mu am seen i valeur daal lay wax bële moo ëpp force bi ci topp euh, moo ko gën a euh, euh, yem yemba maayam ci force bi ci topp ak bi ci toppaat su ma leen di jox exemple comme li fi xew mooy fii constitution moo féete kaw moom lañ naan la charte mère yaay maanaam loi bépp loi bu nekk Sénégal constitution mooy mooy mooy mooy mooy mooy seen yaay bokk moom moo leen maanaam moo leen moo leen moo leen moo leen supérieur donc après constitution loi day daal di ñëw duma dugg nag ci détails yi ay ay traités internationaux ak yooyu mais constitution moom moo jiitu tegu ci loi ñëw su loi pare euh, jurisprudence day daal di ñëw jurisprudence mooy décision yi nga xam ne méngoo na ànd ak te te te te juge di ko def ñu naan ko jurisprudence bi ci topp mooy règlement intérieur après ay euh, euh, yeneen di soog a ñëw léegi euh, lan lu tax loolu am solo maanaam distinction boobu parce que constitution loi moo ko féete suuf donc loi dafa war a conformer wu ci constitution warul weddi constitution benn yoon lépp lu muy def day respecter constitution ba donc du am benn disposition boo xamante ni day bañ a méngoo ak constitution ba léegi après loolu euh, dëkk euh, kii daal di ñëw jurisprudence aussi ci loi lay lay basé wu warul contraire à la loi donc de même que règlement intérieur du du contraire ak euh, ak jurisprudence du contraire ak loi du contraire ak constitution donc noonu la demee léegi Sénégal ba mu daj loolu moo ko régir amul exception même su fekkee da nga taxaw nga ni euh, sama lii dama dama ce am titre foncier déedéet nekkul ni parce que da am titre foncier que yow yaay doxal lu waaye nekk ca dëkk ba du noonu de kon sinon dëkk bi du am dëkk booba par exemple du am euh, du am gendarmerie du am euh, police parce que police ak gendarmerie ay agent la yoo xamante ni état moo leen di fay te suñu xaalis la koy jëlee ñun impôt ñooy fay impôt suñu xaalis la koy jëlee di leen fay daal di koy installé ci dëkk ba ñu daal di yor mbirum yoon mi donc nit amoo droit nga am parce que titre foncier nga am daal defar sa loi dëkk loolu amul fenn parce que d'abord yow euh, euh, c'est vrai que titre foncier droit de propriété pleine la maanaam moo gën a fort ci moomeel euh, li ñu naan moomeel ci côté suuf titre foncier mooy bu mag bi moo ci gën a fort ndax boobaa su la neexee nga jaay su la neexee nga nga yàq suuf si lu la neex def ci suuf si mais suuf si nga moom nit ña fay dox moo moo leen donc nii mbir mi demee yow suuf si nga moom nit ña dox moo moo leen plus que d'autant plus que euh, maanaam euh, foofa dañuy jaay ay kër donc mayewuñu wala abalewuñu déedéet dañuy jaay ay kër te ay eh, am na ci domaine yoo maanaam eh, gox yoo xamante ne ay millions lay jar te millions yooyu <laughs> sa poche lay génne nga dem jënd ko donc ñoom suñu demee ba yow yow même soo ko dindee gaa soo ko jëndee peut-être ñu la defal morcellement eh, duñu la defal ay kayit gaa foofu mais dañ lay jox acte de vente rek ko mais quand même loolu commencement de propriété la donc yow investir nga sa xaalis suñ la waree génnee nekkul ni dañoo war a ñëw toj sa kër loolu <laughs> loolu moom erreur bu mag la donc dañ la war a dédommager dañ lay dédommager euh, normalement euh, jox la lan fa defoon ba pare nga daal di génn donc noonu la mbir mi war a demee dans les normes donc texte bi euh, lu tax ma ni xaw ma ban valeur juridique la am parce que dama ci gis lu bari loo xamante ni dafa contraire à la constitution te xam nga texte bi kon Eh, comme ni ma ko expliqué sànq hiérarchie de normes kon eh, lii mënul am valeur juridique mënul am beneen valeur juridique xanaa yow nga dëkk ca dëkk ba nga nekk fa nga daan ni aha d'accord naa ci lii ñu ñu ñu ñu ñu appliquer ma ko te loolu bu boobaa yow yaa koy yëg yow mi ko def mais quand même eh, lii moom xam naa ni amul benn valeur juridique moom ndax Sénégal c'est un pays laïque loolu lañu wax fii maanaam charia daw fi euh, mën nañ nag def euh, maanaam poser wu question pourquoi charia daw fi dans un pays où quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais sont des musulmans les quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais nekk musulmans charia waroon na fee mën a daw mais quand daw fi comme daw fi nag yow donc amoo droit génne genre euh, genre texte boo xam da nga ko bëgg imposer Euh, sa dëkk euh, ci côté boo xamante ni dafa contraire ak constitution bi euh, loolu daal moo nekkoon sama sama seetlu ci xam naa texte bi ñu wàccee fii maa leen di nuyu di leen ziar. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk bureau bi maa ngi leen di ziar bu baax xam naa déglu naa gelo atumaan bi xaw ma Fatou Bintou du xaw bon <clears throat> nee Euh, texte biñ fa dugal yaakaar naa waxu sëñ Mountakha Mbacké bi la hafizahullah di lekk man gisuma texte bi te jotaguma déglu déclaration bi itam waaye nag wax dëgg yàlla mën naa kitaabu ne sëñ Mountakha moom du digle wala mu tere wala mu wax walla mu dindi wala muy def lu wuute ak alquran ak lu wuutee ak jàngale yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, kon képp ku ñëw dugal texte boo xamante ne lu sëñ Muntaxa teg la mën ngaa wax ne boo ciy wax ci digle alxuraan ak ay tere alxuraan ngay wax gisaguma texte bi nag bi ummi ayu ni ni waaye nag gëm naa ne eh, sëñ Muntaxa moom du wax lu wuteeg alxuraan léegi ñi moom ñëw na ci wàllu droit dégg naa ñu ne xaw ma dafa am dafa jàng droit xaw ma dafa am ban yaakaar naa en 36e la ñu wax ci droit xaw ma lan am na daal benn xottu bu mu am ci droit man nag duuma duuma légaliste duuma juriste duuma nangam duuma nangam jànguma droit mais xam naa ne li mu wax nii ay laaj lay suscité par exemple hiérarchie des normes bi nga xamante ne Anskelsen Anskelsen euh, moom moo ko def comme ni ma dégg gars yi di waxee euh, d'abord ñoom dañ ni ay salafiste lañ ay salafiste maanaam du moom que nga ne salafiste nga du moom que nga ne alquran ak sunna ngay topp danga ngaa war a rus sax taxaw di wax ay hiérarchie des normes fan lañ bind hiérarchie des normes ci alxuraan ak sunna fan. yow da nga ne lépp lu yonentu defut lépp lu yonentu waxut lépp lu yonentu déggut lépp lu yonentu xamut baaxut fan la yonentu xamee hiérarchie des normes génneel ma baat bi ci jàngale yonentu hiérarchie des normes da nga ñëw taxaw naan xaw ma pyramide la xaw ma constitution charte mère le droit xaw maanaam yabaate dafa bëri ay façon hmm. léegi bu saxee ne yow gëm nga hiérarchie des norme gëm nga constitution charte mère gëm nga loi organique gëm nga nangam nekkatoo salafi yow xalafi nga waaw génn nga ci salafiya parce que salafiya seen seen charte fondamentale seen aqida seen credo seen but seen objectif mooy effacer fi kullu shay'in ci niñ ko waxee ñoom lu dul jàngale salafiya maanaam bu ngeen amoon doole yéen hiérarchie des normes bi daf fi dégagé wu bu ngeen amoon doole constitution daf fiy jugee waa iddu ngeen di teg teg seen jaasi ak ak benn garabu koko kon yéen amu leen am croiser les bras buy nit ñi di wax ci wàllu droit wàllu nangam yéen waru leen na sax wax déjà yéen nekk boo ko Haram ne ngeen jàng éducation occidentale bi sax dafa haram léegi nag bu mun taxaa ñëwee xafisahullah digle loo xam ne yàllaa ko digle tere loo xam ne yàllaa ko tere ngeen am la kilo taxaw ne da ngeen di wuteek moom li ma leer ba leer mën naa koo kitaabu mooy bu doon Ahmed Lo moo ko digle yéen ñëpp da ngeen di nekk di cëppi cëppi di applaudir ne seen sëriñ moo ñëw pour taxawal sunna seen sëriñ moo ñëw pour taxawal alxuraan ñi ci des ci ay caaxaan lañ nekk. mais comme yéen comme yéen lu baax du baax fekk jugewut ci yéen moo tax lu nit mënti def ci lu baax du ngeen ko gis. lu nit mënti def ci baax du ngeen ko gis lii nag moom boo ko bëggee jox benn définition kese kese kese mooy yahudisme point com maanaam diine yahud la moom walan tarda ankal yahudu wala nasaara hatta tattabia millatahum bu ko Ahmed loo defoon wala Ibrahima Khalil Lo wala Albani wala nangam ngeen taxaw fi tàcc yuuxu ekkati ko suñu sëriñ ñoo taxawal sunna ñoo fi xeex bidaa ñoo fi nangam ñoo fiir ci diine chaque jour ngeen nekk bi Omar Omar Omar Sall la gis nañ ko bi naafila yi ñuy def ci kii bi kenn musu ci wax ñun ñoo ci wax ñun ñoo xeex ci diine ñun ñoo fiir ci diine léegi nag am ngeen gàcce parce que ñi ngeen den woowee ay mubtadia ñi ngeen doon woowee ay nangam wan nañ leen ni ñoom ñoo leen gën a tegu fi yàlla teg bëgg teg jaamam yi ñoo leen gën a tegu fi yonent bi tegoon tànkam ñëw di digle li yonent bi daan digle di tere li yonent bi daan tere wala que ngeen sëggal seen bopp yi sikkim laal dënn ngeen taxaw di wax ay hiérarchie des normes ay constitution te ba pare li may firndeel ne man euh, yaakaar naa entrant sixième nga am ci droit wala xottu suukar waaye duwul doctorat ndax maa ngi dégg yaa ngi wax ne jurisprudence di ko boole ci hiérarchie des normes jurisprudence amut fu mu bokkee ci hiérarchie des normes amut fu mu bokkee ci loi du loi jurisprudence source de loi la mais du loi bon duuma nag juriste xaw ma ci dara waaye nag yow moom xam naa ne maa la ci tene moom te ñeme naa cee dem ak yow même même ci même ci diine l'islam bi ngeen di woote même ci salafiya sunna bi ngeen di woote jurisprudence du loi suuf su delluwaat la ci boo ne alxuraan ne sunna da nga naan ijma waaye doo wax jurisprudence am leen respect tuuti am leen respect ñàkk jom dafa bëri ay façon loolu benn la ñaareel bi mooy yéen yéen a ngi ubbi seen groupe whatsapp tuddee ko alfurqaan alfurqaan xaw ma alfurqaan teg ngeen fa seeni règlement intérieur ne ku dugg ci groupe bi du def nangam du dugal nangam du wax nangam eh groupe whatsapp boobu noonu fu mu nekk ndax yéen yéen ko moom ba ci teg seen règlement intérieur lu tax indiwu leen constitution indi loi organique indi nangam waaye yow yaa ko ubbi yow yaay xool nu mu la neexee nga tëralee ko nu mu la neexee teg ci say charte nu mu la neexee ab suuf yi du fa dugg salafi rek a fay wax kenn du fa dugal vocal kenn du fa nangam kenn du fa def dugal nangam léegi nag Serigne tuubaa ak njabootam gi nga xamante ne titre foncier Touba seen titre foncier la ngeen bañ ne ñoom duñ fa tëral seen luwaay li dëppoog li yàlla bëgg ak li dëppoog li yonent bi bëgg te xam nga li leen di firnde ne yéen li ngeen di woote nii dara ngeen ci xamul maanaam bu ngeen jàngoon sunna si ngeen di woote sax da ngeen am da am benn niveau boo xamante ne du ngeen wax waxi dof yi seen seen kilifa ci ci ci ci salafiya bi muy Muawiya sayyidukum Muawiya ibn Abi Sufyan jamono bi jullit ñëpp ijmaa yi jullit ñu baax ñëpp ijmaa ci ginnaaw Seydina Ali Muawiya dafa am àtte boppam bu mu nekkoon Sham lu tax waxu leen ko jurisprudence charte mère nangam ak nangam dafa dafa piétiner loolu yëpp dem uti charte bo uti àtte boppam nekk Sham foofu léegi sëñ Muntaxa moom nga xam ne génnul ci àtte yàlla génnul ci ndigalu yonentu bi sallallahu alayhi ngeen taxaw di ko wax ay jurisprudence te moom mu moom dëkkam Eh, damaa yaakaar ne kaani xeeñ ngeen kay moo tax ngeen nekk di wax seen waxi caaxaan yi xam leen ne daal murid yi ñu leen ci ëpp xam-xam téeméeri junne yoon ñoo ci nekk li ngeen di woote sunna ñu leen ko gën a xam ci murid yi ñoo ci nekk téeméeri junne yoon li ngeen di woote ci droit ak légaliste ak ak njàng àdduna ñu leen ko gën a xam ci murid yi ñoo ci nekk téeméeri junne yoon ngay gis koo xamante ne waxuma la doctorat agrégation lay am ci jàngam ba pare sol bay baylaat bu ngand takk maxtoom di di di xidma yéen nag kon mu comme munu leen loolu xalim mbaa kudra xas na jaar seen kaw ngeen bokk ci ñuy texeati ba ilaa yawmi din te duñ texeeti dimbale leen ñu ngeen may ñu jàmm dimbale leen ñu may ñu jàmm yu mel nii dafa war a dakk ah dafa war a dakk bu ngeen taxawee fii di tal làmmeñ naan Sénégal àttewuñ fi lislaam nañ fi àttee lislaam bu kilifa diine taxawee wax waxu lislaam ngeen taxaw di ko xeex yéen lan ngeen bëgg on peut pas vouloir une chose et son contraire soit da ngeen di nekk ci xorom bi wala ngeen nekk ci suukar si ma taxaw te billaay wallaay tallaay bu ma ci déggaatee seen ciib ciib yi dinaa dinaa sol benn tànk tubéy ak yéen sëñ Muntaxa li mu wax moom la bépp nit war a wax ku baax bépp nit a commencé ci si allazi tawalla kibrahu minkum muy Ahmed Lo waaye ñàkk jom ba bëgg a dee yéen a ngi noonu léegi seen Arabie Saoudite googu nga xamante ne foofu ngeen wax ne moom mooy xiblatu sunna foofu léegi ay boîte de nuit moo fa may wax ñu naan ay boîte de nuit xalaal foofu tëgg ñoom ñoom Nicki Minaj ak ñoom Jay-Z ak ñoom Beyoncé di fa dem ay ngay gis imam bu sikkimam bi toll ba ci jumba xam bi ngeen di ko woo di ko jox ay carte mariage muy joué léegi yàqute googu noonu nekk Arabie Saoudite moom ngeen nekk Arabie Saoudite moom ngeen bëgg a indi Touba moom ngeen bëgg a indi Sénégal ci dëkk kilifa diine yi ñun yàlla daf ñoo dimbale gis nga li bàyyi Niass waxoon al islaamu bil arabiyati yabqa wa bi gayri l arabiyati yabqa yaqwa duwul ne nit ki am na der bu weex mu ngi làkk arab sikkimam gudd na tubayam cëkk na rek moom moo yor l'islam gis ngeen jariñu li ngeen di xeeb fee ngeen demoon wala seeni sëriñ dem fa ñu jox leen ay shinkaaf ak kaasa jox leen ay shaay saada ngeen lakk seen tuux yi ñëw aynoon baadun xaawun taawun bëgg ñoo fonto jariñu yi ngeen di xeeb ñoo ñoo yor lislaam bi tey te ñoom ñooy amut bi nga xamante ne ñoo téye daaira lislaam bi arrêtez vos conneries là in uridu illa l-islaha ma stata'tu salaamaaleykum wa rahmatullah